bismillahi rahmaani rahim euh, comme ni ko sunu kadee waxee Mouhamadou dañu amoon mbébét les jeunes de la coalition Yewwi Askan Wi ak les femmes daje def de manière conjointe benn point de presse mu nekk loo xam ne nag dafa am euh, benn waxtu ci xeex bi nga xam ne ñu ngi ci nekk di xeex pour jàmm ci réew mi mais surtout pour que sax ci réew mi dafay laaj ñu taxaw waxtaan ak askan wi waxtaan wi nag euh, jubluwuñu ci lenn lu dul gindi askan wi ndax benn instant bu ñu moytuwul danañu jaxase xelu askan wi ba ñu yaakaar ne ñun ay nitu fitna lañu bëgguñu jàmm wala dañoo bëgg a def loo xam ni du noonu ci réew mi te loolu naam dara amu ci ndax ñun ay nitu jàmm lañu ñun dañoo bëgg suñu réew ndax loolu mooy suñu toor bëgg suñu réew bëgg defar suñu réew waaye ñun tamit ay jigéen lañu ay yaay lañu yoo xamante ne dañu ne dañuy jóg génn ci biti xoo xeexal suñuy doom ëllëg seen njariñu ëllëg muy loo xam ne nag am na coût ndax metti na torop waaye coût boo mu am ñu ne jaral nañu ko maanaam tey jii nit ñu bëgg traité comme ay hors la loi traité ñu comme ay nit yoo xamante ni Euh, euh, tekkiwuñu dara wala en fait duñu duñu sax ñu bokk ci réew mi euh, lenn kese la mooy ñun dañoo bëgg suñu réew te dañoo fas yéene xeex pour suñu réew am li ñu bëgg li ñu bëgg nag du ay wi ñu gis fan yi weesu bugguñu ay woowu dañoo bëgg jàmm ci réew mi en tant que jigéen ndax dañoo jur ay doom te suñuy doom ñoo tax ñu nekk fii tey di wax dañoo bëgg jàmm ne veut pas dire aussi que su fekkente ne danga am looy revendiquer nga am looy dénoncer doo ko def ndax yàlla sax ci boppam dañu ko may waxatuma la ak sunu constitution bii nit boo amee loola naqari danga koy faj soo jéemee faj sottiwul nga wax ko ba ñëpp dégg la mbaa nga yuuxu ko ba ñëpp dégg la ci tànk yooyu lañu nekk yuuxu wallu ba àdduna yëpp dégguñu ñu liggéey ci liggéey bu mucc ayib def ci lu mucc ayib wax nañu ñu dégguñu taxaw nañu ci biti manifester nañu def nañu li nga xamante ni rek moom la sunu constition may waaye ba léegi nii ñu gis ne ñi ñu jàkkaar lool ils n'ont rien compris décodé guñu ba tey engagement bi nga xam ne gis nañ ko ci ñun mais surtout xale yi réew mi génn nañu manifester ci kon loolu dama naan euh, euh, doon na loo xam ne suñu moytuwul dana indi guuta dana indi blocage boo xam ne ci réew mi ñun ñii ñëpp kenn soxlaw ko ci ba tax na dañuy ñaan ñiñ ko seqal muy le pouvoir di ñu ànd ak Macky sàll ak moom Macky Sall nañu xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xarñaar mais surtout nañu xam ne lii ñuy def suñu droit la moom mayuñu ko ñoom ñooñu mayuñuñu ko suñu constitution ci état de droit bii ñu nekk moo ñu ko may te dañ koo fas yéene jëriñoo dañ koo fas yéene jëfandikoo mënuñoo nekk nag ci réew moo xam ni kenn du sañ a wax li la naqadi waaye xanaa ku am ay crampe sa biir di métti bu yàggee nga yuuxu métit la ñuy dund métit woowu la ñuy wax donc mënuñu ñu ko xañ lii dëgg kañ mooy woote na fi dialogue mu xooloon nu mu koy defaree ba mu doon loo xam ne du doon dialogue boobu nga xamante ni farce la mais mu doon waxtaan woo xam ne waxtaan wu sérieux la ku nekk xam li nga jàpp baax na wala baaxul moom moomu ci saal ñu xamal ko ne ko li nga bëgg même buñ la ko bëggoon jox yow mi yaa ko war a bañ parce que mënatul taxawaat di nekk candidat mais mënul tere ku mel ni Ousmane ko mu nekk candidat ak yeneen candidat yi nga xam ni ñenn ñi xeex na leen ba ba ba ba génne leen dëkk bi ñii mu xeex leen ba tëj leen mais loolu kañ lay jeex dafa war a jeex loolu la ñuy xeex bëgg nag suma doom yi nga xam ne bu Sénégal tàkkee amuñu fu ñu jëm jël décision ni dematuñu ci gaal yi jël décision ni dañu fas yéene toog fii xeex pour seen réew jëm ci kanam ñu bàyyi leen xel ñun yaayu Sénégal ñun yaayu askan wi loolu lañu bëgg droit yi ñu am suñu njaboot war ko am loolu la ñu bëgg ñu bàyyi ñu ñu défendre ko bu ko neexee ak bu ko neexul parce que nag moomu réew mi te ba léegi nii yëguñu ne Sénégal régime monarque monarque moo fi moo fi am c'est une république respectons les valeurs républicaines respectons les fondamentaux de notre république su ko defee ku nekk gis ci boppam Sénégal jëm kanam loolu la ñu bëgg wax di leen xamal ni Ousmane Sonko nii ñu ko tëjee xañ ko droit xañ ko liberté metti na ba ci kanamu yàlla te ñu ngi def loo xam ne bu ñu leen ko defoon tey waxtu wi duñ fi toog ñu ngi koy def loo xamante ni nag tôt ou tard yi dina jeex kon nañu fexe ba xam ni sénégalais la il même les mêmes que tout le monde tabaski bii ñu jëm dëgmal ci dañoo bëgg mu jouir ci ses droits de liberté dem julli ji jumaa wëlbatiku ziyaar ay mbokkam ak yi am di jàmmam wëlbatiku dellu si këram ci jàmm ak salaam recevoir ay ganam ndax recevoir gan sax mënatu ko lu ëpp nag tuuru nañu dellu ginnaaw balaa muy wees loolu lañu ñu a wax jërëjëf. merci beaucoup madame la maire euh, damay bi à Sadji pour que mu nekk le premier salaamaaleykum euh, assistance bi ak euh, bi ñëw ñëpp man maa ngi tudd Mambidji Sadji euh, nekk membre na des jeunes de la coalition Yewwi Askan Wi ci conférence nationale des jeunes leaders di fi représenter Aïda Mbodj ànd saxal liggéey alliance nationale pour la démocratie donc tey li waral waxtaan bi dañ koy wax de manière concise et précis ndax umpalew leen ne du bërëb bii ñu toog tey ci la waroon a toog pour jang jano ak yéen presse bi li ko waral nag du lenn lu dul bi ñu ñëwee ñun ñi war a organiser conférence de presse bi ci siège u PRP ñu fekk gendarmerie barricadé ko bi ñu fekkee gendarmerie barricadé ko comme ñooy organisé man ak suma frère ñaa on est parti voir la gendarmerie bi ñu ñëwee waxtaan ak ñoom ne leen ñun kat dañu ñëw pour organiser euh, suñu euh, activité bi ñu war a am ci biir siège u PRP mais am ma grande surprise mu am un gendarme bu ma ne ma la manifestation est annulée bi ma ne la manifestation est annulée ma ne ko quand même soyons sérieux c'est pas à vous d'annuler une manifestation boo xamante ne organiser woo leen ko mu ne ma non elle est interdite ma ne ko su fekkente ne dañu interdire cette manifestation li waroon mooy ñu jox ñu une une notification a on n'a pas été notifié mu ne non rek chef am bi jël parole ne ma oui en réalité dañu interdire euh, accès wu dugg ci biir siège bi ma ne ko mais je vous le conseille mais tey yaakaar naa ne act bu nit posé am na lu koy am na lu ko wundu am na lu koy lay maintenant lan nga ñu mën a wax ba tax na ñun ñu mun ci jàpp pour interdiction bi tax ñu interdire ko lim moo ci tegal mooy que ne ñoom dañuy recevoir ay ordre pour interdire accès siège perpe donc forfaiture boobu dañuy bàyyi sénégalais yi ñoom ñu gisal ko seen bopp ñu jóge foofu dem ci ginnaaw taxaw fa di waxtaan pour xool lan lañ war a def pour mun a jànnook askan bi waxtaan ak ñoom en tant que ay ndaw yoo xamante ne buñ tëddee duñu nelaw ndax fi nga xamante ne dëkk bi fa la war a jëm ñu fekkati ñu foofu ne ñu nañ fa jóge moo waral tey ñu ñëw janoo ak yéen fii nga xamante ne tey lañ toog di waxtaan donc suñ jógee ci loolu mu nekk nag ñu ñëw ci euh, beneen poñ bi waral li tax ñu janoo ak yéen ndax daa am ñoo xamante ne ñun dañoo jàpp ne dañ leen jàpp arbitrairement ñu leen di woowee ay détenus politique tey ku ci mel ni monsieur le maire de Kër Massar Sud Bilal jaata ñu ngi ko jàpp te ba léegi kenn xamut ci lan lañ ko ci lan lañ ko jàpp lijjanti wuñ ko ñu ngi ko ñu ngi ko bàyyi foofu depuis ñu ko jàpp ba léegi benn yoon la janoo ak ak ak ak procureur donc kon tey su fekkente ne kooku jàpp nañ ko ñu gis ñu jàppaat suñu frère Pape Ablaye Touré pour lim ci ñaar ñooñu rek ñi nga xamante ne kii autorité administrative la donte tey am na casquette politique mais avant casquette politique bi autorité administrative la parce que c'est le premier magistrat euh, comment de la commune de Kër Massar Sud. Pape Ablaye Touré nekk jeune boo xamante ne moom aussi dafa yàgg investir ci terrain bi moom aussi ñu jàpp ko jiiñ ko ay affaire te lim ci wax ngeen dégg ngeen ko kon ñooñu nga xamante ne lañ tuddee ay détenus politiques ñun tey suñu ngor moo ñu mayul tey. ñu tabaski te ñëwuñu taxaw waxal leen ak askan bi wax ak justice bi wax ak président de la république pour que ñoo ñu nga xamante ne tey ñoom lañ teg loxo pour ñu xool ci yenn anam lañ leen war a mun a bàyyi pour ñoom ñëpp ñu dellu si tabaski si seen i njaboot ndax kat fañ nekk du seen place ndax sàccuñu fenuñu reyuñu ay nit. kon tey su fekkente ne dañu jëm ci lu mel nii muy événement muy tabaski. daanañ gis président bu ñuy dem ci tabaski euh, wala ay feet wala ay xew-xew daana am ñu ñu daan def ay grâce daana am ñoo xamante ne tey dañu jàpp ne détenu politique yooyu ñu téye arbitrairement war nañ leen mun a bàyyi ñu ñibbi seen kër ndax ñu ci bëri ay njaboot lañ ay responsable de famille la. bu dul loolu ku ci mel ni Bilal ñu ngi ko jël élire ko démocratiquement comme ni ñuy falee président de la république. ñu xañ ko tey li nga xamante ne tey mooy mu exercer mission bi nga xamante ne ñooñu Kër Massar ñoo ko ko ñoo ko ko jox. kon loolu su amee président na jàpp ne moom askanu Kër Massar ak askanu Sénégal yépp la jàpp loolu euh, euh, seppi la rek maanaam échantillon la ci li nga xamante ne ci loolu la ñuy wane. nga xamante ne nag mu nekk forfaiture boo xam ne kenn kenn xamut fi nga xamante ne fa la toll gis nañ ay doxalin yu bëri yoo xamante ne tey suñ ko fi toogee toogee di ko fi wax du jeex. ndax manifestation yaakaar naa ne droit la ñun ñu taxaw ne dañuy dem tey kër Ousmane Sonko yóbbul ko xaru tabaskeem waxtaan ak moom saafonte ak moom wax ak ñi fa nekk pour ñu dindi li nga xamante ne tey mooy blocus bi à notre grande surprise le préfet génnee arrêté interdire loolu nga xamante ne tey c'est un droit fondamental mu jaaxal ñu jaaxal nañu ba mel ni sax ci état providence lañ nekk lu tax ci état providence lañ nekk parce que instant yi ñu ngi tey violence bi am yëpp waaye yeewu askan bi ñoo koy indi violence bi am yëpp Ousmane Sonko moo koy indi loolu yëpp li ko waral ndax lan benn xale bu jigéen boo xamante ne amul ëdëb xamul fu muy teg tànkam ndax nag loolu foog ñu wax ko suñu nekkee ay daw pare pour wàcc quand je dis wàcc mooy pour am taxawaay boo xamante ne pour aar ñañu Sénégal la nañu xam ne ñun jeunesse bi pare nañu te ay fan yu néew dinañ lancer benn plainte parce que plainte bi ñuy lancer mooy Adji Sarr tey mënul di dox di ak di euh, di dox ay ay soxlaam ñu jël ki nga xamante ne mooy président Ousmane Sonko te euh, barricade këram mënul génn mënul wax ay nit mënuñ ko seeti te ka nga xamante ne tey moom moo tax tey coow coow bi lépp am mu am jàmm nañ xam ne nag jeunes yi dinañu tey porter plainte kooku nga xamante ne mooy Adji Sarr li tax ñu koy porter plainte tey. mooy décision de justice bi ñu génnee gis nañ ne tey liñ toppee woon Ousmane Sonko muy viole ak menace euh, euh, teggi nañ tuuma boobu ne Ousmane Sonko defuñu defu ko. beneen bi ci topp mooy gis nañ ne tey jii génnoon ci période manifestation yi ñu ci bëri seen bakkan mu ngi woon ci xottu gerte te ñenn ñi seen bakkan rot na ci. kon jeunesse bi dinañu lancer plainte ci ñett ba ñaari mbir bi ci jiitu mooy dañ dinañ porter plainte Adji Sarr porter plainte boo xamante ne plainte populaire lay nekk parce que dinañ génnee plainte bi. wàcc ak moom def ay signature yoo xamante ne askan bi ñoo koy porter seen bopp pour lan pour porter ko euh, pour diffamation maanaam wax loo xamante ne duwul dëgg ba Sénégal yëpp tey nekk ci guuta beneen bi ci topp mooy dinañ ko porter plainte ndax dafa def loo xamante ne tey dafa tax nit ñi seen dund nekk ci danger maanaam nit ñi tey kenn am kenn amatuloon sañ-sañu génn te li nga xamante ne tey moo ko waral mooy aji saar wax ja nga xamante ne moom la wax te ambut parce que dafa ne Sonko daf ko sàkku ci violence ak li nga xamante ne tey moom mooy menace de mort. beneen bi nga xamante ne moo ci topp dinañ ko ah, euh, plainte encore ci troisième point bi mooy plainte bi nga xamante ne dañ ko dinañ ko def mu moom mooy ànd yëpp trois motifs yi mooy plainte contre comment dirais-je homicide involontaire. parce que ñun njott nañ ne tey moom mi génnee wax jooju ba nga xamante ne tey am na plus de euh, euh, quinze seize personnes yoo xamante ne tey ñàkk nañ ci seen bakkan. amul kenn ku kuy responsable ku dul soxna soosu nga xamante ne moom la ñuy wax aji saar aji rabi saar donc kon nañu xam ne jeunesse bi tey lañ gën a taxaw tey lañ gën a motiver pare nag pour lan pour faire appliquer aujourd'hui li nga xamante ne moom lañ tuddee le droit parce que ñun dañ jàpp ne aji rabi saar dafa war a fay tey sénégalais yi ndax sénégalais yi toll nañ foo xamante ne euh, euh, li ñu mujjee dund nii rek amatuloon kenn ko am sañ-sañu génn te képp ku ci yàqule wala képp koo xamante ne tey am nga ko loo xamante ne naqar la te eh, ci problème bii la jóge ñu ngi leen ci woo pour que plainte boobu askan bi mun ko signer massivement ci département yi ci communes yi donc ci quartier yi ci gox-goxaat yi bu laajee ñu dugg ci ay marché dinañ ko def bu laajee ñu dem ci ñu war a dem ci euh, kilifa yeeg ñëpp pour que plainte boobu nit ñi mun ko jël mun ko signer dinañ ko def bi ci des moo nekk tey jaloog du peuple ma daaneel parce que ñun ay ndaw lañ te ndaw buy wax te concentré wu ci li muy wax mun na génnee asaka te ñoom ñi ñu janool dañuy xaar pour ñun ñu génnee asaka te asaka boobu yaakaar naa ne duñ leen ko may ndax li ci des moom mooy tey jaloog euh, du peuple bi nga xamante ne tey ñun organiser woon nañ ko ak ñooñu F24 te gis nañ même procédé bi nga xamante ne moom la ñu def pour interdire ko bañ koy waaj ñu fekk ñu parcelle dàq ñu fa pek fekk ñu ci benn lieu privé salle de euh, salle Demba Dia dàq ñu fa fekk ñu ci permanence Malick Gakou dàq ñu fa ndax lan bëgguñu woon manifestation bi nga xamante ne tey moo nekkoon lancement bi mu am fan la mujj def nañ lancement bi def nañ dialogue du peuple kon tey kenn mënul tere li nga xamante ne nit ñi ñu ngi ko bugg a def war ko def ci yoon war ko def ci jàmm war ko def ci dal yaakaar naa ne loolu ku ko gis xam ne tey jeune ndaw yeewu askan bi ndaw yi responsable lañ li ñu mun a wax nag ci suba mooy manifestation bi préfet interdire na ko ñun dañ njott ne tey ku ci nekk war nga mun a jël say responsabilités par rapport ak li nga xamante ne tey moom mooy situation de fait bi nga xamante ne moom lañ constaté donc loolu laa amoon tey lu may ñëw partager ak yéen di leen jéggalu ci kàddu yi bu juumee ngeen xam ne buñ juumee ngeen xam ne nekkuloon ci suñu coobare waaye lii lañ bëggoon partager ak tey askan bi ak suñu yaay yi ak suñu papa yi pour que ñu xam ne kat ñu ngi ñuy noot ñu ngi ñuy opprimer ñu ngi ñuy bunduxatal ci suñu réew ci suñu gox goxaat ci li nga xamante ne ci loolu lañ bëgg a def pour Sénégal mun a jëm kanam je vous remercie. merci beaucoup. je euh, on va donner la parole à Sophie Camara.